bismillahi irrahmani irrahim wa sallallahu wa sallam ala nabiyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man bokki ji li ñu déglu wala di ñu seetaan fii ci Daara Koki TV noo ngi dellu siwaat ci kàttanu borom bi subhanahu wa taala ci seen émission bi ñu leen baaxoo defal ci jamono bu nekk muy émission keppaaru alquran te ki leen koy baaxee di seen mbokk seen xarit al oustaz Cheikh Sour ñuy ziar bu baax ki nga xam ne moo jiite liggéey bi di Cheikh Muxtar Narlo di ko ñaanal borom bi tabaaraka wa taala fan gudd lool ànd ak wér ba fi mu bëgg a àggale liggéey bi yàlla defal ko ko defal na ko ak mboolem mi nga xam ne ñoo koy jàppale ci biir ak ci biti ci góor ak jigéen mag ak ndaw ndax liggéey la boo xam ne liggéey ñëpp la ñëpp am responsabilité continuité ba keroog sunu borom subhanahu wa taala dina fi jëlee yàlla na yeex ña ca topp topp ca ña ña ca topp topp ca ila an yarisa allahu al arda wa man alayha di nuyu bu baax nag équipe bi nga xam ne ñoom la ñu teg fii ñuy saytu liggéey bi ci njiitalu Oustaz Abdul Qadir Seck jazaahullahu xeyran ci liggéey bu rafet bi ak Serigne Sall mi mu àndal wax dëgg yàlla ci liggéey bi ni ñu ko taxawee ci wàllu accueil bi ci lépp rek ñu leen di jaajëfal bu baax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 ولله ملك السماوات والأرض والله على كل شيء قدير إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك سبحانك فقنا عذاب النار ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار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 يخلف a صدق الله العظيم ci ayat yi ngeen jàngal min surati Ali Imran bi riwaayati Warsha an Naafi dëgg yàlla njàngin wi dëppoo ak règlement yi nga xam ne ci la ñu war a jànge alquran te mooy xaraf bu nekk génn fa mu war a génn ahkaam yi muy àttee tajwid bi tajwid yi nga indi ko taxaw fi nga war a taxaw it nag waaw ndax alquran eh, lépp dafa am eh, ay eh, orientation yoo xam ne ki koy jàng ginnaaw bu mu laabee yeesal yéeneem sellal ko dafa bokk ci nag mu mu mu sàmmanteeg yooyu moo tax sax boo demee ci xatmu bi nga xam ne ci almushaful jazairi da nga cay fekk eh, ñu cay wax naan allahuma tajawaz anna ma kaana fi tilawatihi min as-sahwi wa nisyan yàlla yàlla na nu jéggal li nga xam ne am na ci njàng mi ci kaw njuumte ak fàtte walla soppi guñ soppi baat wala aw xaraf wala baat buñ jël dugal ko foo xam ne fi nekku fa aw taxrifi kalimatin an mawdiiha aw taxyiiri xarfin aw taqdiim aw taaxiir aw ziyaadatin aw nuqsaan aw taawilin ala gayri ma anzalta aw raybin aw shakkin aw taajilin inda tilaawati aw kasalin aw surcatin aw sayxin lisaan aw wuqufin bi gayri waqf gis nga kon foofu ñu ngi dem bay jébbalu borom bi subhaanahu wa taala ci taxaw fu xam ne waru faa taxaw aw idgaamin bi gayri mudgam wala nga taxañ loo xam ne keru war a su koo taxañ aw ifxaarin bi xayri bayaan walla nga leeral indi attab izhaar te leerut walla fu ñu war nga bañ ko sidda walla foo xam ne kenn waru koo sidda nga sidda ko aw maddin aw tashdidin aw hamzatin aw jazmin aw i'raabin bi xayri makaan loolu day tegtale ne rek alquran am na jàngin te yonent bi alayhi salaatu wasalaam wax ne zayyinal qur'aana bi aswaatikum na ngeen yokk taarab alqur'aan ci seen baat yi ci jàngin ngeen ko jànge mu gën a neex ba mën a àgg ci xol yi moo tax abu musa al ashari mën na mas na julli guddi di jàng alqur'aan ca suba sa yonent bi alayhi salaatu wasalaam ne ko biig ba ngay julli di di jàng déglu naan lu yàgg moom abu musa al ashari te laysa min baabi riya ñoom xaasaahum euh, def ko ne law alimtu annaka tastamiu ila qiraati la xabartuha taxbiran su ma xamoon ne yaa ngi may déglu kon danaa ko gën a neexal kon nag neexal ko am na solo lool ku yàlla jox kàddu jox la baat bu neex wax dëgg yàlla nga jëfandikoo ko ci jàngal Qur'an jëfandikoo ci noddu boo liggéey neexma la goo xam ne incha allah doo ko rëccu waaye kum jox yooyu nag nga jëfandikoo ko ci leneen lu naqari borom bi noddewoo ko jàngewoo ko Alqur'an. ah boo liggéey da nga ko rëccu ndax eh, eh, eh, sunu borom subhaanahu wa taala ne bu ma leen defalee xéewal ngeen sant danaa leen dolli waaye su ma leen defalee xéewal ngeen xarab ah sama mbugal lu tar la wa id taadana rabbukum la in shakartum la azidannakum wala in kafartum inna azabi la shadid kon daal ki yàlla jox kàddu gu kawe baat bu neex mu di ko jànge alquran ah, di ko nodde kooku na xam ne jëfandikoo na neama googu wala xéewal gi ko yàlla jox ci fi ko bëggee ba tey ayaat yi dafay niroog yi ñu doon jàng léegi ci suratul baqara inna fi xalqi samawati wal ardi wa ixtilaafi leyli wa nahaar la ayaat yàlla borom bi subhaanahu wa taala ne bind gëma bind asamaan yi juróom-ñaar ak suuf yi juróom-ñaar te royuma ko ci kenn kenn mu njëkkuma koo def te kenn dootu ko dootu du ko man du ko mës a man ala xayri misaalin saabiq wa fi taaqubi leyli wa nahaar guddi gi ak bëccëg gi ni ñu wuutonte bu guddi demee bëccëg ñëw bu bëccëg demee guddi ñëw loolu yàlla rek ko man subhaanahu wa taala moo tax mi ñuy wax sax ne qul araaytum in jaala allahu alaykum leyla sarmadan ila yawmi alqiyaama ma bu fekkonte ne dama man yàlla dama def guddi muy lu ba yowmal qiyaama man ilahun xayrullah waaw bu fekkonte ne kon kurul yàlla kan kurul yàlla moo leen mën a indil bëccëg waaye bëccëg bu continuer woon guddi amul kan kurul yàlla moo leen mën a indil guddi qul araaytum in jaala allahu alaykum al layla sarmadan ila yowm alqiyaama man ilahun xayrullah yaatikum bidiyaa afalaa tasma'uun qul araaytum in jaala allahu alaykum annahaara sarmadan ila yowm alqiyaama man ilahun gayrullah yaatikum bi leylin taskunuuna fiihi afalaa tubsiruun loolu ci suratul qasas daan ne wa min rahmatihi bokk na ci yërmaane wi moom borom bi subhaanahu wa taala jaala lakum alleyla wannahaara li taskunu fiihi wa li tabtagu min fadlih wa laallakum tashkuruun ci yërmandeem moo tax mu defal leen guddi ngeen mën a dallu ki doon yendoo liggéey mën a dallu ki yendoo mën a jàng ñépp mën a dallu waaye bu gi ngeen dem sàkku ci seen wërsëg kii jàngi dem jàngi kii liggéey dem dem liggéey kon bëccëg ak guddi sunu borom subhaanahu wa taala nee na wuutonte gi ñuy wuutonte euh, moom yàlla rek moo ko mën waaye nag war ngeen cee jàngate ne ki def loolu wax dëgg yàlla ku yelloo ñu wéetal ko kennal ko waaw kon képp ku am xel mu mu mu mu mucc mu dara jotul loolu yaakaar naa ne doo ci am xel ñaar borom bi subhanahu wa teg ci di tagg di kañ ñi nga xam ne fu ñu toll ñu ngi tudd yàlla bu ñu taxawee ñu ngi koy tudd bu ñu toogee ñu ngi koy tudd bu ñu tëddee ñu ngi koy tudd bu ñu nelawee ba guddi sax bu ñu yeewoo ñi ngi xalaat ci yàlla ni mu bindee asamaan yi su eh, juróom-ñaar ak suufi yi juróom-ñaar naan ko noo ngi seede di la di nangu ne liggéey jëf ju ji defoo ko ngirug neen subhaanaka ñoo ngi lay bàkk di la kañ nang nu fexal nang nu fegal mbugalu sawara ëllëg alladina yadkuruna allaha qiyaaman wa quudan wa ala junubihim wa yatafakkaruuna fi xalqi alsamawati wal ard rabbana ma xalaqta hada batilan subhanaka faqina adab annar ay alladina yadkuruna allah fi jamici axwalihim qiyaaman wa qucuudan wa ala junubihim wa hum yatadabbaruuna fi xalqi alsamawati wal ard qaa'iliina ya rabbana ma awjadta hada alxalqa abathan fa anta munazzahun an dhalik fasrif anna adab annar sunu borom subhanahu wa taala teg ci beneen aaya boo xam ne bi mu ngi nekk aaya téeméer ak euh, juróom ñett fukk ak ñaar wala juróom-ñeent fukk ak ñaar aaya 192 rabbana innaka man tudxili naar faqad axzaytah wa ma lil zalimina min ansar yow sunu boroom subhanahu wa taala noo lay ñaan nga musal nu ci sawara ndax yow borom bi képp ko tàbbal sawara ci ay bakkaaram kooku weeru na kooku ku doyadi la yàlla nu ci yàlla musal wa ma lil mudnibina adh li anfusihim min ahadin yadfa'u anhum iqaab allahi yawma alqiyaama ñi nga xam ne dañoo def ay bakkaar dëkke tooñ borom bi subhaanahu wa taala tooñ seen bopp bu keroogee kenn du mën a dox seen digganteeg mbugalug borom bi yawma alqiyaama mu teg cee aaya 193 muy téeméer ak euh, juróom-ñeent fukk ak ñett naan rabbana innana sami'na munaadiyan yunaadi lil an aminu bi rabbikum fa amanna rabbana faghfir lana dhunubana wa kaffir anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar mooy lan yow borom bi subhanahu wa taala nun day dégg aji woote te mooy sa yonent bi sallallahu muhammad sallallahu alayhi wa sallam muy woo nit ñi ngir ñu dëggal sag am dëggal sag wéetaay fa ajab naa daawata wa saddaq naa risaalata faxfir lana faxfir lana ñu daal di wuy ji wooteem ba dëggal leetaram bi mu indi muy alquranul karim kon noo ngi sàkku ci yow nga jéggal nu sunuy bakkaar te yàlla na nga suturaal sunuy ay sunuy ayib te yàlla na nu yéege ci ëllëg ca way baax ña ni ko yonent yàlla suleymaan alayhi salaam ñaane rabbi awzicni an ashkura nicmataka allati ancamta alayya wa ala walidaya wa an acmala saalixan tardaah wa adxilni bi raxmatika fi cibaadika alsaalixiin yàlla nu yàlla boole ci ñooñu mu dellu si ci aaya téeméer ak juróom-ñeent fukk ak ñeent naan sunu borom subhanahu wa rabbana sunu borom naan rabbana wa aatina ma waadtana ala rusulik wala tuxzina yowma alqiyaama innaka la tuxlifu almiaad mooy yow borom bi subhanahu wa taala nu jox li nga nu digoon yow loo diggee danga ko def ala alsinati rusulik li nga nu ci sa lamiñu yonent yi min nasrin wa tamkiinin wa tawfiqin wa tawfiqin ci ndam ak taw tamkiin muy ak jàppandal ak tawfiq wa hidaaya ak njub wala tafdax naa boonu yàlla boonu weer bi dunubina yowm alqiyaama fa innaka karimun ndax yow ku tedd nga laa tuxlifu waadan waadtahu wa waadta bihi ibaadak fastajaaba lahum rabbuhum anni laa udiicu amala aamilin minkum min dakar aw unsa baadukum min baad فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم wa uuduu fi sabili wa qaataluu wa qutiluu la ukaffiranna anhum sayyi'aatihim wa la udxilannahum jannatin tajri min taxtiha al anhaar sawaaban min indillah wallahu indahu xusnu sawaab yàlla daal di nangu seen ñaan fa ajaaba allahu duaahum bi annahu laa yudiicu juhda man amila minhum amalan saalixan yàlla li ñuy wax ne li wolof di wax ne ku mërta fay du la liggéeyloo kon ku yàlla di liggéeyloo rek xamal ne defal na la tawfiq waaw yàlla ne man duma sànq euh, jëf yi kenn koo xam ne kii def na jëf ju baax ci yéen nay góor nay jigéen wa huwa fi wa hum fi uxuwati diin wa qabulil wal jazai alayha sawa ñoo muy jigéen a góor ñoo bokk di ay mbokk ci diine ci lislaam li leen yàlla li yàlla nangul góor ñi ku ci def lu baax loolu lay nangul jigéen ji ji nga xam ne it moom def na lu baax moo tax fu baree bari ci alquran man amila saalihan min zakarin aw untha wa huwa mumin fala nuxyiyannahu xayaatan tayiba wala najziyannahum ajrahum bi axsani ma kaanu yaamaluun loolu boo demee ci suratu naxli da nga fekk waaye mu waxaat ci man amila saalihan min zakar aw untha wa huwa mumin fa ulaika yadxuluuna al jannata yurzaquuna fiha bi xeyri xisaab kon góor bu defee lu baax sunu borom defal ko tuyaaba defal ko yiw jigéen it kadalik waaw gis nga ci suratul ahzab sunu borom ba muy tudd ne góor ñi tudd góor ñi nga xam ne ay julit lañ tudd jigéen ñi nga xam ne ay julit lañ innal muslimina wal muslimaat wal muminina ak ñi nga xam dañoo gëm yàlla tey góor wal muminaat ak ñi ko gëm tey jigéen wal qaanitina ñuy topp yàlla tey góor ak ñi koy topp tey jigéen wa na ñi dëggu tey góor ak ñi dëggu tey jigéen wa saabirina ak ñiy muñ tey góor wa saabiraati ak ñi nga xam ne dañuy sàlloo muñ tey jigéen wal xaashiina ak ñi ragal yàlla taw tey góor wal xaashiaati ak ñi ko ragal tey aw jigéen wal mutasaddiqina ak ñi nga xam ne ña ngay joxe ca leen yàlla jox di ca sarxe di ca def aw yiw wal mutasaddiqaat ak ña koy def tey jigéen wa saa'imiina ak ñay woor tey aw góor ak ñay woor tey aw jigéen wal xaafidiina furujahum ak ñi nga xam dañuy sàmm seeni pay ba duñ ca yàlla tey aw góor wala ñuy aw jigéen wa zaakiriina allaha kathiran ak ñi nga xam ne dañuy tudd yàlla lu bare baree bari tey aw góor wa zaakiraat ak ñi koy tudd tey aw jigéen ñoo ñëpp sunu borom biñ demee ba ca mujj la mu wax mooy aadda allahu lahum magfiratan wa ajran azima sunu borom subhaanahu wa taala leen waajal ëllëg mooy ak njëggal ak yiw rëy rëy rëy yàlla nu ci yàlla boole. falladina haajaru raxbatan fi ridallah ñi nga xam ne dañoo nekk ci ay barab yoo xam ne xëy na nañ fa bëggee toppe sunu borom nañ fa bëggee dundal seen diine jàppandiwu fa ndax ak bund xotaal ak xat ba tax ñu leen di lor ba génne leen ci seen kër yooyee lor leen ngir topp yàlla gañ doon topp topp borom bi ak jaamu gañ ko doon jaamu képp. ñu ñooña rayante am ñuñ ca rey ci yoonu yàlla li ilaay kalimat ngir yëkkati baatu yàlla bi sunu borom subhaanahu wa taala sunu boroom ne la yasturanna allahu alayhim martakabuhu min almaasi ñooñu ëllëg sunu borom subhaanahu wa bu ñu amee ay njuumte ba am ay bakkaar yàlla dana leen ko dana leen ci suturaal kama sataraha alayhim fi dunya nit nga xam ne noonu la leen ci suturaale woon ci àdduna loolu de kon dañ ciy dégg ne daal fu waay nekk te mënu faa dund diineem euh, sunu borom subhaanahu wa taala lam ko wax mooy suuf si na jógeel foofu nga dem feneen foo xam ne fi danga ko fa mën a dund alam takun ardullahi atam fa tuhaajiru fiha sunu borom ne dana leen tàbbal dana leen suturaal keroog yowmal qiyaama mun leen suturaal fii ci àdduna ba bàkkaar boobee bañ koy def ñoom ak yàlla rek ko ñoo ko xam yàlla sàng leen ba keneen xamu ko ni mu leen suturaale suturaale woon fii ci àdduna noonu lañ leen di suturaale àllaaxira falaa yuxaasibuhum alayha du ca topp wala yudxilannahum jannatin tajri min taxti qusuuriha wa asjaariha al anhaar dana leen tàbbal aljanna joo xam ne dex ya ma ngay daw ca wet ya garab yi meññ ya ak géej lépp nekk fa jazaan min indillah wallahu indahu xusnu sawab yàlla daal ku gën moo gën a rafet ñëpp nu muy faye ak nu muy yoole moo tax borom bi subhaanahu wa boo dikkee ci aaya téeméer ak euh, juróom-ñeent fukk ak juróom-benn it ma nga cee waxaat ne laa yaxurannaka taqallubu alladina kafaru fi lbilaad waaw laa taxtar yow yonente bi salaam buñ la fàbbi mukk mukk bul waru mukk ci li nga xam ne Eh, da eh, ñi weddi borom bi subhaanahu wa gëmuñu li nga indi ah, basta gi ñu am fil aish wasaa fi rizqi loola bu mu tax nga defe ne yàlla daf leen a mane gan wala bu ëllëgee déedéet waaw wantiqaalihim min makaan ila makaan nga xam ne ñu ngi jóge ci barab jëm ci barab continent par continent di dem fu leen neex am jàpp jàppandal ami moyen nee na loolu bu mu tax mukk nga defe ne lañ nekk yàlla gërëm na ko wa intiqaaluhum min makaanin ila makaanin li tijaaraati wa talabi al arwaaxi wal amwaal fa amma qalilin yazulu hada kulluhu anhum wa yusbixuuna murtahaniina bi acmaalihim as-sayyi'a du yàgg dara loola dañ waaw ah, te loolu sunu borom subhaanahu wa taala wax ci suuratul muddathir kullu nafsin bimaa kasabat rahiina bakkan bu nekk ëllëg lam lam jëfoon mooy li nga xam ne moom la fay fekk mënu faa fekk leneen mataawun qalil summa mawaahum jahannam wa bi'sal mihaad ay mataawun qalil zail maanaa bagage yu néew a néew te day dañ summa yakunu masiruhum yawma alqiyaama ila naar ëllëg seen mujjuwaay seen wàccukaay mooy sawara wa bi'sal firaash yàlla nu ci yàlla musal kon mbokk yi dañuy yemandi foofu incha allah ci seen émission keppaaru alquran tey ba beneen jataay bi isnillahi taala dellu di leen tàggu te di ñaanal koor jàmm koor gu ñu nangu yàlla nañ yàgg a fekke koor te yàlla bu koor gi nekk suñu mujj koor ñi nga xam ne dañoo dawlu yàlla leen yàlla yërëm ñu tawat ba am ngàntal woor yàlla na tegg tawat jooju fëgg seen bopp ba ñu ànd ak jullit ñi ànd ak seeni bokk ci koor gi aqulu ma tasmaun wa astaghfirullah li wa lakum ki nekkoon ci kàddu gi mooy seen mbokk Oustaz Cheikh Sour ki nekkoon ci wàllu njàng mi di seen doom euh, Serigne Saliou Sour jazaahullahu xeyran wasalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu